ñu bëgg mooy jàmm dal te Sonko la ñuy jël am nañ droit ne la ñu bëgg moom la ñu am yéene pour mu joxe réew léegi loolu lan moo ci nekk. Euh, ban message ngay lancer à l'endroit des guides religieux euh, nag liñ leen di lancer wax dëgg yàlla moment bi bu ñu waxantee dëgg rek sunu euh, kilifa diine yi war nañoo wax nag parce que nag am na ñuñ fi waxoon muy sëriñ sëñ Muntaxa am na kàddu yu waxoon dafa ne xew mais li ñu gis bu ñu toogee ci li ñu gis nii ku wax yàlla ak ku waxulu yàlla xam nga ne li ñu gis nii dalul xel parce que pourquoi ñu bëgg a forcer forcer na boo koy def li ñu nekk dóor ñu su ma dóor ma fay ma xeex du ma ko mais ku ma dóor ma fay parce que moom yaa ko sa bopp fu la jox kenn yaa koy jëlal sa bopp kon man ci man c'est normal waa di lay di remercier di remercier toutes les euh, yéen journalistes yi seen liggéey am na solo mais lii nag gën leen ko relier mooy ñoom li ñu bëgg duñ ko nangu faagaagal Ousmane Sonko duñ ko mos a nangu parce que nag Ousmane Sonko alalu réew mi la te yaakaaru réew mi la te jàpp nañ ne bu ko fi yàlla jëlee ku ko mën a taxaw ci réew mi fii ki mën a taxaw ne publiquement lekk ma benn dërëm ku ma mos a lekk taxaw nga wax loolu kenn laa la ne politicien di ko ñeme wax maa ko wax di ko assumer nag waaw procès bi c'est normal dina wuyu loolu moom nit ñi dañuy wax rek dina wuyu lu tax du nit la sénégalais la dina wuyu jë ñu bëgg ko teg lu xam ne ne teguwul duñ ko nangu loolu la ñuy wax non dina wuyu non dina xam nga lu dul nangu ah déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet xam nga lu ñuy nangu xam nga lu ñuy nangu non non non non déedéet li ñuy mooy ñu teg ci ñoom loo xam ne ne du dëgg waaw dara nekk ci mais wuyu ça ne veut rien dire. est-ce que boo déggee xale yi am na waxee. est-ce que rapport bi lié euh, la population sénégalaise wuyu xam nga liñ ci gis rek ñu ngi ne lu rey nobin bu dekkee ba ko maanaam li si sunu gis dañoo yàgg gis ne ne jaay doole ak def lu leen bëgg kon waa ba tey <laughs> ko gis nga comme patriote dafa mel ne mënuñ sax reconcevoir Ousmane Sonko dem di wuyu ji kon nag xam nga ne lii mooy wane ne sénégalais ñoo bëggul mu dem bu ñu bëggul mu dem nag loolu moom peuple bee ci wax parce que nag dañu ne force restera a la loi mais force restera au peuple kon wuyu jiwul kon wuyu